ngir gën a defaraat gaal yi nga xam ne ni moom lañuy nappee waaye gën a indi kaaraange nappkat yi jëwriñ gi ñu dénk wàllum napp gi jox na ay gaal yoo xamante ni dañ ko defar si xarala yu bees yi ci ñi nga xam ne ñooy nappkat yi nekk ci diwaanu Mbour ak Fatick. révolution bi ci am nag moo di dañu fas yéene abandonné bant pour defar gaal tey jii li xew ci àddina bi yëpp dañ ko jéggaani bu mu ñëw. doomi réew mi jël dajale seen alal jël ay risques parce que moom mu ne dafa am risque dénk ko seen doom mu jàngoon bitim réew amee xam-xam bitim réew indi ko appliqué ko fii tabax lu toll nii defar ay gaal wan ñu prototype bi tey def naa juróom-ñaar lañ ciy séddale am na fukk ak ñeent yoo xam ni de réalisé na ko ak ñoom ministère daf ciy jàpp. pour que accès bi gën a simple gën a facile ci suñu programme pêche aquaculture lii def ci bokk moo tax dinañ jël ca li bu budget jox ko waa DER yile gaar nag nekk fibre de verre dina am ay jumtukaay yoo xamante ni day gën a dimbale pêcheurs yi ci seen wàllum liggéey waaye moytu accident yi nga xam ne day am ci géej bi. muy gaal yu mucc ayib muy ay gaal yu nga xamante ne c'est insubmersible maanaam du dikk euh, muy gaal yoo xamante ne aussi euh, dafa dafa ànd ak package de sécurité muy ay géolocalisation di ay gilet de sécurité et cetera ngir nag ñaxtu yi nga xamante ni nappkat yi waxoon nañu ko jëwriñ ngi ñu dénk wàllum napp bi bu fi jiitu jëw yi ñëwee moom nag nee nañu gis nañ ne loolu dina am waaye ci biir loolu dineen organiser conseil présidentiel buy wax ci wàllum napp gi ngir yëkkati jafe-jafe yooyee ci fan yi ni ñëw